daa bëri sugu sugu waaye loolu wax wax yow wax wax ju am solo la jamono ji moom hôpital yi mat na ko lool mat na ko lool lool lool lool ku mel ne suñu Abdourahmane dara mu ci ñu ñu ñu ko côté bu bu bu baax a baax ndax ndax it yeyoo na ko ci noonu waxuma ci gëj ma yàlla de waaye diggante noonu noonu rawatina ku mel ne man yeyoo na ko ñu defal ko hôpital umum boole ko ko ko ci sëñ Moussa gis si ñi nga xam ne ci xadraam bi lañ toog moom it ñu ñu yéene ko ci daaw sax dañ ko wutoon ab ab ab dox bu noppee dañ ko wutal ab dox ab dox moom moom nga xam ne moom lañ koy jagleel ndax di yaakaar taatan ay leeram ak ak barkeem nga xam ne kat yàlla mën naa seere ah safurla wala boobu jaam ñi mën nañoo seere sama borom jaam ñi ne li li ñu andi fii mooy li ñu andi fii day mooy yaakaar ko moom borom bi ndax yaakaar naa fañ jógee kër yee moom yaatu naag daara ya waaye li tax li tax ñoo ñu wax ñoo ko ñëw ba ci fii nga xam ne bu dee keneen ab àll la koy tudde te man moom ma tudde ko ab ab xadra ndax koy ko tedd kii di tëdd mooy joxoon ko suñ bàmba ndax suñ bàmba kat ginnaaw moo ko béy woon mu maam Thierno suñ bàmba ab joxañam benn sëkk man man man de béy na ma ne kon moom moom lay xeñtu waaye ji jeexital yi rek fu mu ne daanaa wax naan day su ma sañoon sëñ Tuubaa fu mu def ak ak leer ma am ci ak njaboot loolu day mel ne bu dee ci sa sa xel bi day mel ne mu daan ah day mën naa am de fii ba fii ba addina ci xel bi te bu ma si diwaat def defu leer rek ma am ci leer ga ndax daal leer leer yooyu yëpp soo ko boolee su ëllëgee mën naa bay lool mën naa mën na ñëpp mën nañ ci caaxi te mën na ko adduna xoox na tubaab yi lot nañu lot nañu lool jàmbaar lañu ñooñu saam di wax mo mo mawlid bi luy tegtal ci ne dundal ko loolu moom daanaka service yi ñoom jeexal nañ sopp yonent bi alayhi salaatu wasalaam fàttali ko ko jàngat siiram la loolu moom loolu dañ naan fuddalu ñëw sa bërkël seen loxo ak ñi ko yëkkati ñu ne ñu ne kay ñi ko yëkkati kay xanaa ñoom ñoo war a am tegtal waaye bu dee yonent bi moom amul tegtal Alxuraan jàngal nañ ko jar na sunna jàngal nañ ko mu ne su ko ñàkk bañ a def képp koo xam ne saa salaam ñëw ko la alku na su sëñ Moussa Ka dootumu di ci ma neex lool ndax maanaam dafa lu ci man lool maanaam Moustapha saa salama mu mu te jomba way ku koy jomba way bum tum la ñuy tub ba tub tuwi Moustapha mu te jomba way ku koy jomba way bum tum la ñuy tub ba ba ba du tuwi kon loolu leer na loolu amul dalil kon ñu ngi ko fas yéene kon kon ma màggal ci ci summan yàlla na ko kooku ko yàlla nangu te teg ko ci loxoom sëñ Bamba mu teg ko ci loxoom soppeem bu tedd ba salataan alayhi salaam mu teg ko ci loxoom seen sopp bu mag ba mu te mu sumburoom ki nga xam ne mu moo nu andi ci ëdduna ji ngir ñu jaamu ko yàlla ñu yàlla sarax ñu jaamu ko nag waaye yàlla yàlla ñu sarax ñu jaamu ko dëgg dëgg na ko bëggee jëmb yi moom attanu ko mu am kattan di amuñu ko amuñu kattan di jaamu yàlla jógi sëñ Rahman di tax ma bëgg ñu ñaanal ko mooy yéene jëf rëy na waaye damaa xam ne nag dina ne jëmb di attanu ko la bëggoon tigi ci di di leen dem ak boromam mën na koo yéene waaye nag tigi atunu ko moom moo tax ma bëgg moom it di ko sama ji lool ba ba maqaamam maamam ne suñu doom sotti ko ci kawam ba bu teseeg maam Thierno teseeg sëñ Bamba duus fukk waaye waaw loolu jaam ñi rek seedal nañ ko ne duus waaye nag yàlla ñu gërëm dafa sew de dafa sew sama bàyyi ne woon na sëñ bi nee na dudd ko lu jeex jëfe na sa dagga sëñ bi man lu jëf di rëy rëy ci suñu bët tuuti na fa feel lool waaye nag yàlla moom xam ne tuuti tuuti na na fa moom yàlla ko àttee ci yërmandeem su ko àttee ci yërmandeem lépp jàkk kon kon sama ci temps boobu kon kon kon si naan kon ngay tàmbali ko doon
dangay laaj kursi dangay laaj kursi ba am kursi nga nga soxla laajal kursi ba am lim bi mu soxla nga lu waaye mën a ko woon bi defal naa nga
waaye ko ci man maam Fatima Samb Diop moom fii Samb Astu bokkoon ci ummahatul muridin yi ci waa Barzakh la bokkoon wax na ma ko ay yoon yoon yoon kese bii wax na ma ko wax ay yoon yoon ay yoon sama baay ba mu ba mu wàccee liggéey maam Jaxat ba mu wàccee liggéey ñëpp rek wax na ma ko ay yoon yu jiitu la saa bu saa bu ma dikkee di wut ci mu barkeelu ndax de wax si ñun ñii dañoo baaxoon loolu bu amee mbokk mu nelaw moo xam ab taalibe la wala ci ci ci kilifa yi ñu dem ca en face ba ma maam jaxat wàcc fa barkeelu ma façon samba mu mu ada woon di di dox barkeelu si duwaa ma ak it suuf dem ci mille place maam jaxat yi noonu ma fa samba rek mu mu mu ne ma soxna soxna tamit te ñaan ci waa Barzakh yi rakkam dafa nelawoon sëñ bi daal daal di wax soxna yi ni leen wut leen am mbalaan daal ko def ci suuf jàng ci jàng ñeent fukki lixlaas def la ci def ko ca barab ba dana mel ne ku tukki woon yóbbaale mburu mu bari mburu mu nag bu bari booba la man la ma ci ci ci ci fekke woon wogg laa doon wogg gerte su jigéen daa defar wogg wi moroom jigéen ñu di di xanaa da ngay tukki mu ne waaw maa ngi jëm dëkk sàngam moo tax di ñoom wolof naan ku wal mburu tudd dëkk sëñ bi nag ne kon ñeent fukki ñeent fukki lixlaas yi ñi kon dana nekk ci moom lu tedd loo xam ne dana am sërite bu bari bu bu bari yaakaar naa ñun kaw kaw kaw ya xamoon nañ ko bu bu bu nitu taataax bu nga ñëw andi mburu mburu yi ñu xam su ko mos a andi ñëpp a bëgg loo andi lu mooy mburu sangam du neex gone yi ñoom la lañ bëgg nga laay mooy mburu kon kon suñu subi si la lañ bëgg a yóbbantu mburu moomu kon waaw taasu sunu ci barkeem sunu soxla yëpp yëpp yi nga xam ne yàlla gën na ko sunu bon faj ko waaw te yàlla bañ ñoo jàppe bon bon yi waaw jàppe ñu gaa yu baax rek waaw xoole ñu si si mesure bi ci la moom ba suñu yitte yi bala ñoo ñëwaat fii jiwén te ni yàlla ñu fi ñëwaat ay jiwén yu bari ànd ak jàmm sal ko buñ fi fi ñëwaat déwén yàlla na fekk suñu aajo yi nga xam ne pas nañ ko ak yi ñu ko sut xam naa ne man la sëñ Bamba waxoon suñu xarit yi ba leen liggéeyloo ba xel si ne dana liggéeyloo liggéey takkal dafa jox leen ne leen fas leen ci lu leen bëgg ñëwee sax ma fasal leen yéen su seen fasee su seen peccee xandeer ngeen di fecc man su ma su ma fasee su ma peccee wul sax xaalis lay fecc daal ni leen fasal naa leen ci ngeen dekkee fa yonente yi dëkk ëllëg waaye may kon fasal naa ci ñun ñëpp rek ñu teew ci jotaay bi suñu borom ak suñu suugi si la ñuy ak gaayam yi ñu dekkee fa yooyu tey dëkk yaakaar naa lu parce que boobu moo gën a foor adduna ji waaye yéen nag yéen nag adduna ji jigéen rek ji dañ ci fas ji lépp suñu borom nangu ko akay sëñ bi akay jàmbal yow day nii da mu de la ko sama xol bi waxe woon suuf si bu nappee sam dañuy wër noonu ko man fa sam waxe am na ñu musam wax wax fenn ci ab de ab xaw ma julli bu néew di ko wax ay musolo benn waaye ne ca toon ne ma ak ak fatiha ma ne ko taxawal ma fa sàmba ne sëñ bamba ne man ñu ko moo ñu mu de caabi bu bu bu yées bu ubbi bu ëppee lu yées sëñ bamba daal ñett fukki laxas la ma fa sàmba ne sëñ bi ne te ne ko nekk na ko ay yoon yoon ma fa sàmba boobu nagatul jéegul na nag sax ku daa woor ngàtt nga ba bi muy dem ba saax ci tëbbi at yi tegal na kooku kooku kon ko kon xam ne nagatul ndox yi neex lool dox naa ci moom di di di waxtaan ak moom tusbaar jot mu dem ah ndoddu ma naka ndax naa ndoddu guñ jëm may tekk di di ma dugg léegi tey nee nga ndoddu xam ne moom ay noppam ma gën a neex suñu nopp avant ji su su koy jàng du du du yor ay weer waaw bis ba neex lépp neex rek waaw kon kon ñun fi defaat si képp daal nañ ko jàng rek yem ci képp rek bu nekk ñu wër nag jëfli ko ci suuf si dem seetlu ko ci ci barab kon xanaa noonu loolu xanaa kon si la maanaam dañu wit dañu wit mat naa man mën naa jàpp lool jël suuf si sotti sotti ko ci barab ba jël suuf si sotti ko ci barab ba mën naa jàll jàpp lool ginnaaw ma ko sàmba noonu noonu la ko waxee woon man na ko de waaye yàlla bu bu bu gàtt lool man rek man ko sàmba sëñ Bamba ku ku ku koy jëlaat di ko soloo kon mën naa gàtt ci yow lool waaw xam naa li may def sànq nag sama xel daa dem ci lu am solo mas naa Italie aw bëy boo xam ne sax jub naam jubut dama dem Italie yi dem ci ab gaar war a di jë jëm Rome taxaw ci gaar bi nag mënumaa la la lakk lakk italien ma gis ku ku ma gis nit ku ñuul noonu ab Sénégalais ma ma kii la man dama bëggoon wutu dagg bi danaa demal ko benn waay daal ñëw ma defal yére wax man daal ñu nuyu ma ne ko man de daa bëgg nag kii waaye dañ ne xaw ma rom daal dafa am ñaar gaar bu njëkk bi ak ak mujj bi mu ne ma waaw roma principe boobu mooy bu mag ba dafa ne wàcc naa ko daal di yóbbu ma ma dagg biir ma daal di am rek man tël ma ndékki ndéegu sax xanaa ba noppi toog mel na ku jëm fenn di waxtaan ak man di waxtaan ak man ba saxaar gi bëgg a dem bala ma jóge ci awoor boole ma ak seen soxna waaw ma ne ah bu bayit wi daal di ñëw ci man shahidu shahidtu li cheikhi waqta xuruji li safar kawna muridihi min ahsani dura waaw see see daal naa ne sëñ bi daal muritami ñoom bu bu gaa yi doon rus ñoom ngalam leen waaye dama seet nii rek sëñ mosoo gis la nii ak moom ni mu soowee adiya ñu ñu di ko defal lii noonu waaw xam nga te seen sëñ maam ba baax seen bi ah baax na de yàlla baax baax na de nga nga de sa juróom ñëw ci ñëw fi moom jëlal naa ko waaye nag toog bi di ko defal fidaaw yi xanaa sëñ Tuubaa nee na fidaaw ci sawar ñu ñu ñu ko koy defal ngir rek wala gëm walante woon ak maam Thierno waaye noonu maam Thierno yàlla ñu daw noonu wala gëm walante moom sëñ Tuubaa fu mu joxoon rek rek foofu la dafa aussi bi seen ñu day sëñ Tuubaa fu mu joxoon foofa la noonu ñu xam kon ñëw kon murid yi baax nañ de baax nañ de sëñ Mor Mbaye Cissé sëñ jàmmal dafa am mas a ñëw sëñ jàmmal bu daan ñëw Touba dafay jàng si mu fi obligé si ñëpp rek sëñ Cheikh Tidiane si amul tum fa ma sëñ sama boobu boobu dem sëñ Mor sëñ Mor ne ko dongo yooyu mbaa dongo yooyu xaw taq mbaa du leen wax dara sëñ sëñ jàmmal naka nakal sëñ Mor ne ko dañuy dagg salante ko dagg salaan taq waaye du du leen tee añ de waaw loolu am solo la lu neex la sëñ Mor a ko wax loolu la keroog waaw nga xam ne kon ñun daal am nañ yaakaar noonu waaw am nañ yaakaar nag ba ba amal yaakaar sax ku ñu xam ak ku ñu xamul waaw waaw loolu kon kon jëf jàngo wax dinaa yàlla banaa bel xidma li mu sëñ nag abadan wax moom mooy ji si musugi si la ñu ngi koy xidmaal te sama bàyyi ne woon ne sëñ bu nee dund boobu jeex yëngal nawet si sa ragga alaxira alaxira du jeex de mas na maa gis mas nañoo benn benn rapport ñu wax ne benn yaxu nit boo xam ne ci ca Éthiopie la lañ ko fore 1986 ñu ne am na juróom benn million ci ci biir suuf te te kat bi ci taxaw gudde kooku kon compte boobu yëgoon kon ma mën naa jeex nga kon si si si si monsieur Gisile la moom ma doon wax loolu lépp rek. ba bëgg rek seen compte yooyu gën a fees rek waaw gën a fees ndax ndax ndax mën na ko de mën na ko de adduna adduna daa wóoru daa daa te te te yàlla daa gis gis ba dafa neex lool li ëpp ci liñ naan baax na mën naa am sax baaxul maa ngi koy wax sëñ Modou maa sant rek maa la ragal wala sa sama baay waxoon na ma de xamoon lu xew waaye daal ñu baax ñi de bala bala fi kenn jóge sonn léegi nag loolu mooy doon waaw loolu sala sala ma ci boom bam naan Fatima laa karba ala ak yi ki baatal yow xool ko waaw xool ko maa sa salam àggoon na ci ñu Sidna Aïcha naan léeg-léeg sax mu mu ne def naa may kom ndekete boobu def ko mais kon kon te te koo kat ak a tedd ak a tedd ñun ñëpp ak ñi mu gëm ñëpp salaay salaam ci barkeem lañ lañ amee lool kon kon kooku kon kon ginnaaw kooku kay mat naa fas bu baax nag yàlla mu musal ñu ci sukuraat ma ngi it nag damay xam ne dañ caa juumoon dañ dañ koo fàtte woon a fas fàtte woon koo liggéeyal waaw maanaam mu ci sukuraat mën naa nekk de waaw mën naa nekk. ñoo ci sukuraat Cheikh Moustapha dafa amoon seen soxna soo xam ne dafa waxoon ne ko parce que man de dama ragal sukuraat lool keroog bi muy wàcc soxna sa bi muy wàcc ma nga naan mooy leen ci sëñ bi rek koy wax bu wàcc waaw mooy leen sëñ bi mooy sëñ bi waaw kon kon koo kon moom sukuraat kon jarute waaw moom moom jëw ko kon kon kon kooku kon ñu ñaan rek ci barkeb sëñ Moussa bi si li ñu ak gaa yi yi fi tëdd waaw maanaam sëñ Cheikh si la nee na nee na ma jëneer bi am na jëneer bu bindaa siin fii ab lumière bu leen meññ ci barab bi nee na boo doxee ba ba bu jub ko mën mën nañu nekk man oh man kon kon kon kon bëri la suñu waaw maanaam it bi ñu defar barab barab bi ñooñu ñu ko gisoon ñu ñu koy wétali noonu seen seen perkaal yi yi sax. surtout kuut ma ma ma ko wax xam nga dafa am solo suñ bi ah ñooñu ñu ne ko ñu ay ay ay sëñ lañ yàlla ñu ñu yàlla defal seen mbir moomee waaw ñoom ñoom ba tey ëllëg boobu ñu duggee ci ci bàmmeel yi sunu jëm du soppi ko waaw perkaal yi du soppi ko ba noppi yi du ñu la yëg la ma waxoon si mu talaa yàlla ñu ko am ñëpp booba booba booba ngam sama bàyyi na ma kat si mutulaa loo bëgg ci moom ngam ci gën a gaaw ngam moom comme sax moom ci moom nee na ma ci ci ci ci gàmmu la fay si mutulaa ma am soxla soxla soxla soxla sama seen soxla képp la booba nee naa fa nee naa fa jóge ajjuma dem fa moom bu kën yoon ñu njaayee ne yëfa ne dañoo xam lool ne fa du sonn lool ndax da bu jóge ajjuma damay julli bu ñëw soog a jëfandikoo ne fa nag bu kën yoon nag ma dugg boobu yoon bañ gërëm waaye am naa ab si jaar ba may dem nag bi may dem ci moom maa ngi yéene ne ko xaj yi yëtun sa sang ba sa salaam war ma taxaw fa nag ba ba fa fàtte loola bi ma duggee ba kii jiri njaay moom ma xorom moom ak njaayam la ma ko jiri njaay tam danaa bëgg loo xam ne sëñ bi ne ko danaa bëgg su su su su su su su may faatu dinaa gis kii su ma faatu gis kee dama ko mën a te dama ko tere woon saa sala ma sintuwa ji daane waaw sëñ bi ne wax am ko doon ko aal ci ci dama daal di ges ges ma daana salaw mën na jël njaay waxal ma jël njaay am njaay ne ne ne waxal sa bopp bala tiit da daa koy jox seer gi waaye ni ni doxo bi ngir kan ngir kan dégg nga de ma daal di ma daal di fiam nag daal ne ko ngir sa sopp ba sallallahu alayhi wa sallam damaa bëgg soo fi jógee gis kee gis dama xam ne dama teelee si ñoom ñaar soo fi jógee gis kee mu ne waaw salaaw salaaw salaaw jooju kon yàlla nañ ca dugg kon waaw salaay salaam suñ waa ko ko gis fii wala salaay salaam ko ko gis fii ak ko gis keneen seen ñoom ñaar fee te depuis yoon na de moom ah yàlla nañ ko sunu borom sax bakke si si si tuwaat kon kon kon xam naa kon ñu dugg ko kon ci moom it riwaaye bi gën a gàtt mooy mooy si nguudu si nguudu mii si nguudu mii riwaaye bi gën a gàtt dafa ne ba ma amoon si maamoor si say la seen yëpp bu soxna amita ñaan seen tubaab waaye si nguudu moom amee na ko sax guddi gàmm boo xam ne waaw guddi ci gàmm moom sañ ab yi bu di ko nettali soxna Aminata Ñaam diwaa nee na gis bu mawaahibu muqaddamaat midday yi ko koy jàng bis bi bi wala guddi gi boo ko jàngee dañ cay séddale ci aw yiw kenn du la ci ëppale suñ xalifa bu bu bu baax ba yàlla na ko yàlla doon leeram mu suñ cor no no paaloo si mu dafa daa ma liggéeyoon de bu bu xëyee balaa bu nekkoon ci mbooloo sax balaa wax ak kenn da da koy jàng ba noppi soog a wax ak kenn kooku ku defar moom yàlla na ko yàlla dugal ci ci daaw yëpp rek kon na ko ko kon de de de dañ koy séddale xam naa doon sax wóolu kayit la daal koy wër rek bu bu ñu ko wëree maanaam benn kayit ñu def ko juróom-ñaar yoon ci xool ba xam waaw waaw kenn ku nekk am ci am ci benn kayit ñu def ko juróom-ñaar yoon waaw juróom-ñaar moom xam naa moom moom lim na ok en fonction si si mbir ok ok. buñ ko buñ ko jàngee nii mën naa am mën naa am mën naa am mooy gën a wóor mën naa am mooy gën a wóor kenn ku ne ci noonu mën naa am am na sang boo xam ne jumbut njàngam ja njàngam ma la sama borom bi diglu waaye ku mel ne si suñu sincère yu yaakaar naa wul yaakaar naa saa yi dama daa wax waaye maanaam maanaam mat naa siram taw ndax koo xam ne bu ne yaakaar naa wudu yow kottu rek dong la ñu jaamu yàlla ne wax dëgg de mais yaakaar sañin yow kottu rek dong la la la ñu jëfandikoo yàlla ne wax wax dëgg de kooku suñu jot dundam am na njëriñ waaw waaw waaw tuuti tuuti rek jox jox nañ ko bu màgg waaw waaw waaw woon loolu suñ bi am na solo mbooloo mi mbooloo mi aljamaatu rahma waaw am na am na ci suñu biir koo xam ne moom la suñu borom di déglu waaw ca la si daaw waxoon ca commandement yi waaw njëriñ ba korombee te ñuy jàng hymne national France bi sëñ bi du muyu drapeau bi njëkk tubaab bi tàng ne ko lu tax ñu gën drapeau bi nga du muyu mu ne ko waaw mën naa ko xool de waaye bu ma xoolee nguuru France jeex ci kaw suuf waaw waaw te doon tubaab bi ne ko kon baax na tubaab bi ne ko moytu ma man kat maa tax nga yóbbu te tey sama garab yi yokku na sëñ bi ne ko man de boobam ba yàlla bu doon lu ma doon làmb la tey de tey dañ naa ko tey te kat sa rôle bi suñu borom man la ciy dugg fu mu toll waaw ko waaw waaw koo xam ne kon leeram gaat toog bay xawe yàlla na këpp ci suñ kaw rek Cheikh Mouhamadul Muntaxa xafisahullahu wa nasarahu yàlla ko suñ borom ci barkeem ñaan yëpp mu bëgg boppam wéral ko kattanal ko ku ñu ku ku ku mel na ne ñëpp am nañ ci moom yaakaar yaakaar ne yàlla boobu des waaw yàlla ko yàlla yeggal waaye ba naa lii mu àgg ci loxoom nag yàlla mën na ko wa maa zaalika alaa Allaahi bi aziiz ñooñu sunnaal yëpp suñu borom moo moo mottali ko àggale ko ci suñu karam ñu ne gal sa biir àgg ga Sëñ Tuubaa yi gërëm looloo la bu su gërëmee rek sa salaam gërëm na sa salaam bu gërëmee yàlla gërëm na waaw kon kon kii na waaw kon bisimilah kon nga xamante ne moom moom it pasal ci pasal ci ñëpp rek pasal ci mbirum ñëpp. si si li daa wax ne kullu muridin qara'a xasaayidi bi ixtixaali faasa bi xasaayidi képp koo xam ne da ngaa texee xoole sama xasida yi am ci pas bu baax da ngay mel ne da ngay góor kon kon kon koo xanaa kon murid ya tax kon kon dafa fekk kon murid yëpp seen aajo yi faju seen yaram yi wër fan yi gudd gërëmul yàlla ñu am ko ci xadim ak kon ak kon ko ko yëngu